yaraw ci mboolem lu yaay Alaaji Fallu saa soo leen bëgg xibaar yu wóor te gaaw bale ko wér gaaw leen gaaw abonné seen chaîne bii di Ndindy Actu waaw da ngay bës cloche bi def abonné lépp mat bu ngeen bëgg également ay publi reportage ñu couvrir leen également seen ay événement lu si mën a doon événement religieux politique société maanaam daal xew-xew jàpp leen Ndindy Actu mooy chaîne bi gën a gaaw waaye tamit gën a disponible ngir seeni xew-xew woote leen gaaw si service commercial bi di 77 693 90 46 wala 77 698 96 53. Cheikh عتاب بالمملكة ngeen jëf mbokk yi suñu mbokki jàkkaarloo ñu jëriñu seetaan asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ñoo ngi amati mbégte kontante di ñaanal xalifa général kulu murid Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool ci ànd ak wér ñaanal mbooleem njaboot ak seexul xadim gépp mbokk yi nag tey ñoo ngi ci bis bi nga xamante ni moom la ñuy fàttaliku gisee seexul xadim xadim suul ba ak Seex Ibrahima borom Daaru Moxti gannaaw nag ba mu demee ci tukkeem bu boobee ñu koy fàttaliku di ñaanal Serigne Bassirou Anta Niang mi nga xam ni kër maam Thierno Ibrahima gannaaw nag bi ndigal li bàyyi ko ci xalif général kulu murit Cheikh mu Mountakha Mbacké yàlla fi yàgg lool ci ànd ak jaar ci sëriñ Bassirou Anta Niang xalifa borom daarul moxti waaye itam wàcc ki nga xamante ni mooy porte parole yoon wi porte parole borom daaru tey di sëriñ Bassirou Mbackeem sëriñ Abdoul Khoudous ñi ñaan yàlla doole ko too fexe kàttanal ko ak mboolem comité organisation bi nga xamante ni ñooy saytu tey màggal gi mbokk yi nag ñoo ngi fii nga xamante ni fi la ñu denc ku baax ki nga xamante ni mooy maam Thierno Birahim borom borom daaru muy fii ñuy wax bayteeg maqaama ñoo fi tey jii nag àndanteeg yéen ci siyaar yi nga xamante ni mbokki taalibe yi ñu ngi koy def bàyyi ko ci ay yi fasantikoo yi nga xamante ni ñi ci biir réew mi ak bitim réew ñëw na ngir siyaare si maam Thierno a njabootam bi nga xam moo fi tudd ñoo fi tëdd waaye taam ba nga xam ni moo di Serigne Modou Awa Balla ak mboolem njaboot gi nga xamante ni ñoo ci aju yëpp jaar ci sëñ Abdoul Khoudous ba ci nga xamante ne euh, mooy euh, Baye Cheikh Khady ak mboolem njaboot gépp nga xamante ni ñu ngi tëdd fii tey. kon nag yaakaar naa ni leen yéen ay reportage ay témoignages waaye tamit lépp jëm ci li nga xamante ni mooy bésu tey bii nga xamante ni moom la ñuy fàttali giseb Serigne Touba Khadim Rasoul ba ak ki nga xamante ni mooy maam Thierno ñu ànd kook seen site internet bi nga xamante ni moo di Istikhama TV ànd ak seen télévision ITV. waaye itam 24 ak yëpp nag ñu fas yéene ànd ak yéen incha allah ci kanam tuuti ay seere ak i témoignage ci borom Daaru Moxti ak i ci kër yi nga xamante ni muy kër njaboot ak borom Daaru Moxti gi ba ci kanam incha allah badatu bismillahi warrahmani wa bi raymi maliki lasmani fata man sumatul fatawu lil mustafa sumatul mistaawu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 محمد صلى لذو القدم تسر مني دوام القدم أحمدنا المختار كفدررا لغير ناوي أبدا وقررا أبقى سلام ربنا المقدم حل رسول والنبي مقدم إن ابن عبد الله فاق الخلق جميعهم درجة وخلقا رحم رب العالمين سرمدا على جل العالمين أعمدا يمن عبد الله غاد البركات لسكنات الأزياب الأركات ذا بالخادم نور الصدور تنوير موجل الشموس والبدور ينقاد nag ñu wëyal ànd ak yéen ginnaaw nga xamante ni gis ngeen image yu am solo yi nga xam ne ci lañ génne bayti ak maqaama fi nga xamante ni fi la Cheikh Ibrahim borom daara moo ti nekk di dallu ak njabootam googule moo tax nag ñëw nañ fii nga xamante ni mooy xalifaam tey di Serigne Bassirou Anta Niang ñuy ñaan yàlla guddal fanam yokku wéram bi ñëwee itam fekk nañ fi tey kii nga xamante ni moo di doomam di Serigne Modou Mbacke moom sëñ Basirou Anta Niang Serigne bi ginnaaw bu ñu nuyoo ziar la pare ñu bëggoon rek nga diggañ ci bésu bi solo si ak taxawaay bi nga xamante ne sëñ Basirou am na ko ci wàccaay wi ànd koog mbooleem daayira yi rawatina comité organisation màggal gi euh, la yan euh, kàddu nga ñu dénk ci bésu tay bi aousu billahi mina shaytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala asrafil mursalin saydina wa mawlana muhammadin al makin wa ala alihi wa sahbihi sawi ridwan tamkin waaw mbokk yi ni ngeen ko xamee tey bis bi bis bu am solo la ndax tey mooy bis fukki fan ak juróom ci weeru saxbaan ah, fukki fan ak juróom ci weeru saxbaan nag dafay bis bu am solo ci Daaru Muxti ndax mooy bis bi nga xam ne ci la maam Thierno Birahim ak Serigne Touba daje woon bi nga xam ne Serigne bi jógee na ci géej gi bàyyi fi maam Thierno Birahim bi mu ñëwee mu woolu ko ndar ñu daje mu sant ko gërëm loolu mooy bis bu si saxbaan bis bi nag mu dajeek ay ay xéwal yu bare bare ndax bis dafa rëy ci lislaam bis la boo xam ne yàlla sunu borom ci boppam moom waxal boppam ne bis bi da ci am ay dogal yu bari yoo xam ne suñu borom dana ko ci def kon loolu yaakaar naa boobu bis bis am na solo waaye fii tey ñi ngi ci kër Serigne Bassirou Anta Niang mi nga xam ne moom la yàlla dogal mu nekk xalifa maam Thierno Birahim waajal nañ ko niñ ko waxee ndax bi yàlla dogalee ñu ñu ñu di ko waajal dañoo yàlla suñu borom dafa naroon na nekk mu naroon na tombe ak wote yi waaye nag ci kàttanu yàlla ak ci baaxu sëriñ bi gis ngeen bis bi ni mu dellu waat ci fukki fan ak juróom moo waral tey ji kon fii ci kër Serigne Bassirou Anta Niang gis ngeen wàccaay bi nañ ko defee comité d'organisation bi nga xam ne ñoo yore màggal gi muy sëñ Bassirou Abdou Khoudoss ak ñi ko seqal ñëpp waajal nañu ko war a waajale ba tey ba tey bis bi kon fii ci sëriñ bi tey gis ngeen mbooloo mi ni mu bare daayira yi ak mbokk yi ak kilifa yi gis ngeen ci yor yor ba léegi ñu ngi ñëw di siyaare sëriñ bi loolu nag yaakaar naa mooy war ne bis bi kon bis bu am solo la bis bi daal niñ mën a waxee daal bis bu am solo la ci lislaam ndax fatay xan bi anna katibaha radin an karidan la suxut baxdaw abadan wa annahu talibun min allahi tabaraka wa taala lakuma yaxidu fi jami am salik fatib nafsan waxar raxanin wala tasuk ko fi kaw ni fi mi rabik ilayka bi wasitati si lettre bi lettre bi Serigne Touba da ko bind maam Thierno Birahim ne ko saa bu sa bu tegee bi na xam ne ki ko bind gërëm na la ngërëm loo xam ne mer du toppati na nga xam ne ngërëm loolu it sa daanaka kon mën nañu wax ne xéwal gi tàmbali naa feeñ fii ndax tey yaakaar naa ku ñëw ci dëkk bi tey gis nga mbooloo mi ni mu toll tey gis nga kilifa yi mboolem ci ci ñu ngi ñëw di barkeelu ci bis bi kon boo xam ne bii bis la boo xam ne bii mën nañu wax ne sax yoonu murit wala daaru lislaam ndax ni ni loo xam ne sunu borom da koy dogal ci bis bi tey daal gis nga mbooloo mi ni mu mel fii ci kër xalifa bi sëriñ Bassirou Anta ñu koy ñaanal mu yàgg fi siyaar yi bi ñu xëyee ba léegi ñu ngi ci wàcce nañ ay kaamil alxuraan def nañ salaatu ala nabi ñu ngi jàng xasida noonu lañ ko fas yéene yendoo incha allah fanaane ko ba suba ci ëllëg sëriñ bi door a dem ci cérémonie officielle bi loolu daal waaw taxawaay sëriñ Basiru moom li ñu ko waxee mooy lu am solo ndax moom bi mu toogee dafa wax ne yàlla sunu borom moo ko fi teg waaye bi mu ko fi tegee itam ci kàttanu sëriñ bi dafa wax ne dafa mbooloo mépp nekk benn mu wax ne lépp lu ma nit di defal te ñi ma seqal maam Thierno Birahim amuñu ko man day mel ne amu amu keroog bi nga xam ne ñu ngi def CRD bi ci gouverneur teew fi autorité yi nga xam ne ñoo yor wàllu kii bi administration bi yëpp teew fi daf leen mën ne maa ngi leen di ñaan lépp loo xam ne lu ngeen may defal rek na ngeen ko defal daaru muuti loolu day wan ne mbooloo mi yitte na ko moom it yàlla defal na ko tawfeex ndax bi mu toog it ñoom ñëpp boole nañ seen seen seen seen bopp jox ko boppam ba gis ngeen jumaa jumaa ji nga xam ne moom la woote woon mboolem ku aj ji waa kër borom Daaru Muti mboolem ay rakkam mboolem ay doomam mboolem seexi borom Daaru Muti yëpp dañoo takku ànd moom ci liggéey ba gis ngeen jumaa ji fi mu toll nii ci décoration yi daanaka li li ñu tabax lépp bari jeex na àgg na ci wàllu décoration yi moo ci bëgg a des bi mu toogee mboolem ku yaakaar maam Thierno Birahim mboolem kuy seex kuy set ñoom ñëpp ñëw nañ topp ci ginnaaw fas yéene ko jàpp ci liggéey bi moom daal ab taxawaay ci njaboot gi nañ jàpp ne taxawaay bu réere la ndax njaboot gi moo leen wuuf moom la fi yàlla teg tey mu jiite njaboot gi Cheikh Ibra Fati kon tey ñëpp ñu ngi fi wuy si ko mu fas yéene euh, jiite njaboot gi fas yéene taxawal li nga xam ne moom la bëgg a taxawal lépp loolu daal yaakaar naa ne mooy li nga xam ne moo moo ci li gën a feeñ waaw yaraw ci mbooleem lu yaay Alaaji Fallu saa soo leen bëgg xibaar yu wóor te gaaw boole koog wér gaaw leen gaaw abonné seen chaîne bii di Ndindy Actu waaw da ngay bës cloche bi def abonné lépp mat bu ngeen bëgg a tey également ay publi reportage ñu couvrir leen également seen ay événement lu mu si mën a doon événement religieux politique société maanaam daal xew-xew jàpp leen Ndindy Actu mooy chaîne bi gën a gaaw waaye tamit gën a disponible ngir seeni i xew-xew woote leen gaaw si service commercial bi di 77 693 90 46 wala 77 698 96 53. Cheikh Fallo.